nit ñi dañu jàpp ne date bi priorité la pour moom moom président dëgg la mais ku dégg ni mu waxee. Mhm. ba ci conseil des ministres. Mhm. dinañu def projet de <clears throat> loi bi. Mhm. yóbbu ko samay député. <laughs> samay député noonu la waxee ah vraiment <laughs> samay député. il a dit j'engage. ah, mes députés mes députés voilà. et même les députés de l'opposition <laughs> parce que lui c'est le patron de la majorité okay, d'accord présidentielle aussi d'accord d'accord loolu laa il faut pas ah, prendre ah, d'accord d'accord d'accord <laughs> d'accord <laughs> mais daf ko ñor quoi amnistie pour réconciliation ak pardon parce que il l'a dit xam nga le président a dit <coughs> hier ouvertement ne man maay man président de la république j'engage mon gouvernement mais députés et même les députés de l'opposition à pardonner parce que nag aussi c'est de ma responsabilité ñu dem ci réew moo xam ne réew mu réconcilier la bàyyi ngañ amul benn réew ci àdduna boo xamante ni du ñu toog benn moment ñu ne kat dañoo bëgg dajale réew mi dañoo bëgg a dajale doom yi man Afrique dëkk bi ma fi gën a xam mooy Côte d'Ivoire xam naa fa wala gis fa loo xamante ne nii tey ku ma waxoon ne ñooñu dinañ toog bay waxtaan dinañ toog bay seqaat dinañ toog bay continuer que man du ma ko gëm parce que man xam naa réew moomu xam waa réew ma dund fa ak ñoom xool exactement nan la ñu defee te loolu. troisième mandat indi fa coow asaka bi troisième mandat indi fa coow ak leneen yu gën a garaaw. asaka bi eggul foofu. te mujjul fenn te mujjul fenn troisième mandat moo tax président de la république. moo tax président de la république bi ñuy wax waxu troisième mandat dafa ne defu ko donc pour montrer la sagesse encore une fois de plus du président de la République ki Sall donc pour vous dire que président de la République moom mi nga xam ne moo yor réew mi ñu dénk ko mu wax contexte bi nga xamante ni moo am ci Afrique sous région bi li nga xamante ni moo fi am mu ne tey jii dama bëgg réconcilier les filles et les fils du Sénégal pour que ñu am réewu jàmm pour dem ci kanam je pense que nit ñi war nañ ko mën a bàyyi xel nit ñi war nañ mën a xam exactement fan lay waxee koo xamante nii da ngay dem nga ne li ma bëgg moom mooy nit ñi dajaloo nit ñi nekk benn nit ñi jàppante parce que da ngay gis Papa Ngagne ñoo xamante ne nii dañuy dem en prison mu am ay cellules wala ay groupement yoo xamante ni dañ naan c'est des groupements de réinsertion sociale parce que dañuy jàpp ne ñii war nañ leen mën a jox une deuxième chance parce que jàpp naa ne réew am na foo xam ne bu fa tollee ki nga xamante ni mooy njiit bi war naa mën a travailler à ce que nit ñi dajaloo. d'accord à ce que doom yi. baalante mu am un pardon comme il l'a mais jàppuloo ni loolu. oui am na lu ko lu ko jiitu. maanaam. mooy vérité mooy dëgg. absolument maanaam dara xew na. absolument ñu gëstu ba xam. absolument yoon àtte ba xam. absolument ba lépp leer ba noppi. absolument lu ñuy def ñu def ko. mais je suis totalement d'accord je suis totalement d'accord xam nga tey comme ni ma la ko waxee. le président de la république xam nga démb boo déggoo man bi may wax ci télé laa waxee ma ne leen jeune ne présage de rien mais en tout cas le groupe parlementaire bi nga xamante ni man maa ko jiite. Ah, c'est clair dina nekk ci sa wet. Mhm. accompagner na la jàppale mhm. ça je l'ai dit. Mhm. parce que nit aussi soo nekkee ci mbir euh, Pape Ngagne da ngay assumer li ngay def te ñun mënuñu nekk ak président Macky Sall Pape Ngagne ànd ak moom. pendant douze ans en tout cas loolu man la Abdou Mbow ba tey mu ne pare na mu ne nangam laay def ma koy won ginnaaw man du ma ko def man Abdou Mbow laa la wax de du ma ko def. non Abdou dinaa ko wax nag li nga xamante ni li ngay li ngay wax nii. non man noo waxuma valeur non c'est juste pour vous dire non non c'est juste pour vous Papa Ngagne que. aujourd'hui li tax loolu mm-hmm. ma koy wax c'est pas parce que pour ses beaux yeux mais parce que dama gis ne. nit la koo xamante ne nii ba mu nekkee ci boppu Sénégal ak léegi Papa man li ma gëm mooy xam naa ne bëgg na Sénégal xam naa ne mosuñoo yónni à l'Assemblée nationale loo xamante ni nii pour du intere Sénégal wala sénégalais yi te gis naa ne engagement boo xamante ni jël na ko ici ak à l'international c'est pour le Sénégal et les loolu bokk na ci li nga xamante ni mooy valeur yi tax président Macky Sall mooy continuer di ko accompagner ça je pense que c'est très clair et je pense que c'est important aussi que les gens le sachent on ne fait pas pour ses beaux wala lu ko neex rek non mais parce que dañu gis li nga xamante ni taxawaay boobu la am ci Sénégal ak sénégalais yi. d'accord alors président Abdou Mbow. Mm -hmm. bi. Mhm.